土伯节是感恩日，它是伊斯兰教摩利的教派信徒纪念该教派创始人沙班巴积极接受上帝的人物。穆斯林日历二月十八日，即萨哈月十八日，人们在塞内加尔摩利的教派圣地图巴纪念沙班巴对塞内加尔伊斯兰教所做的重要贡献。 dëgg la bis bi mu woote nag ak cant la waaye ni mu ko wootee moo gën a yéeméti ndax li nu baaxoo gis moo di ab yeneent wala nitu yàlla boroomam teg ko ay nattu ba mu yàgg mu teggi ko ci yërmandeem mu wëlbatiku nag di sant yàlla ngir ay nattu yu jeex sunu sëriñ bii moom bis ba ko sunu boroom xamalee ni nattu yi tàmbali na bis boobee la daal di wëlbatiku nag woote ak cant ngir fas yéene yenul jaam ñi seeni yitte fa yàlla mooy bis boobee mooy bis ba demee ak a baax 18 safar C'est vrai, le Magal est un jour d'action de grâce, mais ses fondamentaux le rendent inédit. D'habitude, les jours d'action de grâce marquent la fin des épreuves subies par des prophètes ou des hommes de Dieu, et en guise de reconnaissance à Dieu, ils appellent à la célébration. Le Magal, en revanche, est hors norme. En effet, dès que Dieu décréta le début des épreuves, Cheikh Bamba en fit un devoir de reconnaissance, tellement il était convaincu de relever 18 Safar. È vero, il Maggal è un giorno di azione di grazia, ma i suoi fondamenti lo rendono unico. Solitamente i giorni di azione di grazia segnano la fine delle prove vissute dai profeti o dagli uomini di Dio e come forma di gratitudine a Dio invitano alla celebrazione. Il Maggal invece è fuori dal comune, infatti non appena Dio decretò l'inizio delle prove, Sheikh Bamba ne fece un dovere di gratitudine tanto da convincersi ad accettare la sfida, anzi tutte Yes, it's true. The Magal is a date of thanksgiving, but its fundamentals make it unique. Usually, such days mark the end of the hardships undergone by prophet or spiritual guides, and as a form of gratitude to God, they call for a celebration. The Magal, on the other hand, is out of the ordinary. Indeed, as soon as God decreed the beginning of the hardship, Sheikh Bamba made it a duty of gratitude. So much he was convinced to take up the challenges, Es cierto, el Maguel es un día de acción de gracias, pero sus fundamentos lo hacen inusual. Por lo general, los días de acción de gracias marcan el final de las pruebas sufridas por los profetas u hombres de Dios y como muestra de gratitud a Dios convocan una celebración. El Magal, en cambio, se sale de lo común. En efecto, en cuanto Dios decretó el inicio de las pruebas, Sherbamba lo convirtió en un deber de gratitud. Es, en efecto, el día de la salida al exilio 18 safar نعم يوم دعا فيه لشكر الله سبحانه ولكن المعروف عادة عند الصالحين أن يقوم العبد بالشكر بعد ما ابتلاه ربه ببلاء أفرجه عنه برحمته وشيخنا أحمد الخليم هذا في اليوم الذي علم فيه بوصول محنة الابتلاء إليه دعا لشكر مولاه تعالى وهو يوم خروجه للغيبة البحرية يا له من عزيز كريم 18 safar